kon commandant Meng brigade de recherche jegal na camion yu ñëw lu mu gën a gaaw gën a baax ndax kurpañ moom mënta ñàkk ci plateau tey bi plateau bee ko laaj sax tey moom. dëgg la waaw kon am dina leer. kuy waaw tëf tëf tëf tëf waaw. Euh, gis nga booy. <laughs> Eh, bu ko néewal doole wax ko. mën na ko wax ko moo collègue. non sa collègue la. <laughs> booy sa collègue de travail la moo booy sa collègue de travail la wax ko moo collègue bu ko booy. bu ko néewal doole waaw. Omaro Omaro ah. waaw. da ngeen wax boobu ba léegi ma toog di leen déglu. waaw gis nga kii. Uh-huh. du dem fenn ci aar. allo donc dèjà moom. waaw dèjà moom. waaw góom baaxul. Eh. Sénégal kenn xamu ko. Eh. déglu rek yow kenn xamula Sénégal. Uh-huh. yow déjà coluwoo colu ñëw comédien pour wane sa bopp. waaw loolu daa xaw a yiw daal. loolu foot la. daara boo jugee. nekk ci daara ji. yow ferrailleur nga. yow ferrailleur googu tee nga see jàpp tëral sa bopp. yaa ngi ñëw ci gaal goo xam ne bari na coow bari na wax yaa ngi ñëw may ñëw waxatuma fa nga fekk xoolal bu dem ba dikk ba toog di lee ganale ah, uf fu la jaarale pour tàq la nga ñëw demee attaqué yow te tey kee gëj a tàq ah bon waaw neel benn hmm. ñëwal tey ngay gëj a tàq. ndax da ngaa fekk paa bu toog. dem bu dikk. ne ko bu kooba rek mu ñëw fekk mu toog ah ñëpp wéyoo nga ñëw ne ma man ma nga ñëw naa bàqat dëgg dëgg bàqat baxa li sa comédie yooyu day yem si daara ja. <laughs> soo paree rek ànd ak ma dama mujjee déglu ma. waaw ma xayma nga ne ma xoolal sa verre te nga déglu ma. ak ah, bu la neexee dama bëgg nga boo may déglu nga déglu ma. waaw silencieusement déglu ma la. booy xanaa xamal ni man ragalu la ndax ñoo bokk groupe sàngee xool naa la opilis nga lan la maa ngi moom ñoo bokk group sange moo sa genre comédie bi dafa xewi nangu naa. dèjà dafa xew. nii ko la ndax fa la fekk ñu la commune daara dama la wàcc si ñoom di commune daara yi ngay mais commune daara daara amul eh, eh, kii ma naan commune daara daara amul commune booy bi xew ci jamono booy bi xew ci jamono am feeling paaj bari bay di ma wër ma ñëw fii émission Pape Sidy Fall toj ko ni du ma lekk mbaxal gratuit du ma ko lekk du mbaxal toj fii deuxième fois ma ñëw 2STV ñëw fa toj ko nii ñëw naan nii ay baxal man damaa xew <laughs> dama lekk mbaxal gratuit bëgg ma may nugum nugum ngay ngay furuk lay 100 pour cent Bawol Bawol 1000 pour cent Touba judo hôpital sin mi 23 septembre di la laaj lenn. kanaa yow lii la nga xam déglu ma am nga waaye kii lii rek la xam. ah dugub dugub mi seen kàttan. loo bëgg ma may la ko loo bëgg ma may la ko léegi la non non non non non. am na yow danga ne am na yow bu leen ko wax loolu bu leen ko wax loolu ay may ñu loolu. waaw mi ngi neex acca. non dama ne xam nga lu ma bëgg xam nga lu ma bëgg xam nga mooy lan. Cheikh Abdou takk say verre bu la frustré yaa xew ci jamono takk say verre yaa xew yaay filim baaj. waaw dama xew takkal say verre yàlla lay jaay ngay dof dof nit ci kaw si. acca Papa Ndiaye loo ma wax yow may ma benn may. ma may la ma may la benn léeb léegi. bu saf saf. dafa am ñetti paa yoo xam ne. Ah. dañoo bokkoon aw nag aw nag. séddoo ko xam nga ñetti saam la war a doon. waaw ah. hmm. ñu saamee nag yi ñaari paa yi ñoo fa newoon benn paa bi génn am lu mu doon wuti. Hmm. ñu toj nag yi mu doon ñetti saam. Hmm. paa bee jël saamam paa bi jël saamam. paa ba génnoon ñëw fekk nu baal ko ab saamam nag mu ñëw daane da ngeen a séddoo nag bi. ñu ne ko waaw ñu ne ko sab saama ngi nii. mu tiim saam bi nag di ko lëñbat ba mu yàgg. <laughs> gis mu gis ci jencum nag bi maanaam nafa gi ndekete aw raw nag bi dañ koo boole ci sàmm bi <laughs> paa bi tiim sàmm bi ba mu yàgg ni noo man moom du ma jël awra bëgguma awra non du ma benn paa bi ne ko suñ jóob del wax bëgguma aw raw nag bëgguma aw raw nag <laughs> bam nag nga bëgg am di reetaanal bu ko bu ko téye dëgg la lii nii dafa am ku ma sa dal Papa Ndiaye lii muy def nii dafa am ku ma sa dal <laughs> mooy bëgg a reetaan wala ngay bëgg a sëkk di ko téye baaxul da nga xam waa joo xam dafa tiim ak gaynde gaynde gaynde gi la tiim dem ba tiim ko bu koo tiidal far ak ci sori ñëw aw ak tisooli tisooli moo war a sëqat. waaw tim gaynde nga xam ne bu sëqatee gaynde gi yëg ko mu koy téye <laughs> da koo demee yàgg rek bopp bi explose tël gaynde gi bi mu jógee tiit na mais moom yéene gaynde gi mën na ndax waa ji dee na daa koo téye rek bopp exploit tël boo bëggee ree dee ree boo bëggee boo bëggee ree dee ree amul na saf man nga lii nga def nii yëpp retaan loo lugum lugum na saf dolli benn dolli waaw dafa dafa mais mignon booy bi dafa am talent c'est que problème bi mooy loo miin waaw ak loo miinagul day am différence. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dafa am talaa de. mais bu amee talaa tamit yéen a koy jaay de. comédien toog mu war a xam li foofu nag. na ko reetaan loo foofu noonu nag foofu nag erreur erreur de talent moo fay ñëw. Mm-hmm. erreur de talent. talent parce que kii warul kii warul attaqué kii. bu ko attaqué rek ah, gerte la kii man kii. mais da koy attaqué. xanaa gisul man damay sukk si wetu kii. non non da koy attaqué xam nga la moo tax da koy attaqué. sa papa dama ne. sama papa eh, kii. Eh, di sakku ngërëm moom ci xam nga kii dama dama la ko garaaw déglu ma. kii bandi la. kii bu bëggee bu bëggee xam nga dama koy attaqué bu génne li mu yor. <laughs> Eh. da koy attaqué. daa bëgg nga génne li nga yor. Mhm. day màgg daan. waaw mhm. garab ca kaw lay fekk. comédie bi ci la ko xale yi lay mu ji kulli alin. loolu la ñuy ñaan yàlla. ñëwal ci kaw boo yaroo rek. amul yaru amul yaru affaire bi nga lekk wuyu ma. Eh. Eh, dégg nga amaro ma dara mhm. man télévision animation aw ma ku ma ciy neexal yaa tey li ma moom. yaa tey dama koy jëli. ku ma ci fekk nga toog tegle say tànk ma ñokkati ko. yaa tey maa ko moom. loolu eh, mooy fulla man du ma yelwaan de. yaa moom comédie yow. comédie yaa ko ma beneen saa boo teggee ma jox la beneen. ma dolli dolli faa boo xam ni. waaw daa mën a fees bañ naan ko sëñ bi réew mi yaa fi daa ko fees ci àdduna. Oh, boo xam ne jàllaa bi la da koy sol rek dem. am koo daa ñëw di fees lu waaye ku lu waaye dagg yaa moom xam nga ku daan fees ñu lay fay fay ñu ne léegi lu waaye dagg yóbbul sa kër paa bi jëppoo jàllaa bi rek fekk tëddoon na ndekete jëlluwut i dem nag léegi muy dagg ay moromam yi bëgg ndawal ñëw di dagg ku ne di dagg daggante bi jaasi yi ci guddi gi <laughs> paa bi fi mu sëggee lang wagasu fi mu sëggee wagasu nii fa fàttane jàlla bi la am ku yóotu daraam ci paa bi mu musa nel borom bopp rafet bi nu ko nikk jël paaka rek dawale ca tip paa bi nag aal ji ak deret ju tàng ji tax yëgul ni moom li mu yilif dagg na waa ji kon ne di fees di fees ba yàgg paa bi nag bi ñu feesee ba séddoo paa bi taxaw xam nga boo keppee da am loo mu mm. kepp da jug dara mu ni nii daan sama gaa yi toog leen ñu toog mu ni kan moo mujj a dagg <laughs> ana kan moo mujj a dagg ci jotaay bi. nan gars yi naan nii maa dagg maa dagg. mu ni kan moo mujj a dagg ñu ne ko kii ni waaj ko man maa mujj dagg mu ne ko li nga dagg lan la loo mujj a dagg mu ne ko man ci xol bi laa dagg mu ne ko tàllal a mu taa mu ko yaa mën a fen xol dana am karaw. waaw waaw waaw reetaana reetaana rek. non c'est que yow lépp ngay lépp nii. ñu lépp bu yàgg. déedéet déedéet musuma ko dégg musuma ko dégg Amar comédie du léeb rek mën na génnee beneen facette reetaan loo am di. dama bëgg am yow seytaane nga yow. Eh, eh, yow seytaane nga eh, am di la faral. kii élément am di la faral élément am di la. élément am di la am di la am di nga faral seytaane sax man da ngeen yab.